tabarkalla mbokk yi dellu siwaat nañu ci plateau bi ginnaaw binu nu yàlla mayee ñu def sunu xaaj bu njëkk xaaj bu njëkk bi moom tabarakallaahu bu nu ñaanoon sax mu baax ndax am na solo la ndax yi leeral nañ ci yiñ ci waral leeral ci umra bi ci nit ki nan la war a doxi safa ak marwa kóllëre bi nga xam ne moom la yàlla am ak zam-zam ba buñ ko bëggoon tuxal sax ba yóbbu ko Madina wëllëre wi yàlla seqoon ak jigéen tax na ñu bàyyi ko ca barab ba mu nekkoon wëllëre woowu tamit feeñ na ci dund Seyduna Muhammad wi mu doon sàmm digganteem ak Seydatuna Xadija ak kàddu ya Seydatuna Aïcha waxoon ba mujj moom Seydina Aïcha mi waxoon kàddu yi di réccu sax lu tax mu wax ba ñu koy tontu yii façon tontu yooyu yëpp pour wane wëllëre loolu lu am solo la wane nañ tamit ni bépp jigéen bu nekk ci biir dëkk bi di nekk ak sa borom kër ñàkk a sàmm wëllëre woowu ñàkk ko xormal ñàkk koo déggal boo demee bay daw safa marwa war nga caa jàng sa digganteeg sa borom kër sa digganteeg sa kër comme ni ko seydaa jàngalee léegi fàttaliku nii boo jógee ci aj ba wala nga jóge ci umra ba war na yokk ci yow yitteeg jom ak taxawaay ci sa digganteeg borom kër ah alaan nantaqil mubashara ila leylati al qadri leylati al qadri allati hiya xayrun min alfi shahr allahu akbar nga xam ne xeetu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom la ko yàlla baaxee ndeysaan muy benn guddi goo xam ne mhm. soo ko dundalee mhm. di nga ca bénéfice mhm. tuyaaba boo xam ne pour nga am ko il faut nga def quatre-vingt-trois ans pour mën ko am ci benn guddi boobu rek ci lu nga def ko yàlla may la loolu te du quatre-vingt-trois ans kese sax day ne quatre-vingt-trois ans yoo xam ne da nga la nga cay def sunu boroom daf koy gërëm nangu ko mooy tolloog tuyaaba bi ngay am ci guddi laylatul qadri laylatul qadri moom nag euh, sunu boroom ci la def alquran ku tudd laylatul qadri ajaa di nga tudd alquran kon nag dañu lay bàyyi nga dugg ci laylatul qadri rapportu laylatul qadri ak alquran rapportu laylatul qadri ci biir weeru koor rapportu laylatul qadri ci taxaw guddi googu surtout bu fekkee yàlla may na la nga mën ko defee ca euh, Kaaba. Mm-hmm. loolu yiw bu toll noonu. moom la ñu bëgg ñu ñu ñu barkeelu ci incha allah. Mm-hmm. Adja oustaz yàlla na la yàlla fay. Mm. Euh, wax nga lu am solo dugg nga ci lu rëy lu mag loo xam ne wax dëgg yàlla ñu ngi ci nekk ci weeru koor gi yëpp di ko ci làmbatu. alhamdulilah. Euh, macha allah xam nga ne alxamis bi passé dundaloon nañ ko macha allah waaye nag du doy comme li ñuy wax toujours rek ne ku ko wër daal ci première bala trente di nga ko am incha allahu taala ndax moom du génn koor te loo xam ne juróom-ñett fukki at te ñun ci xeetu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam nga gudduñu fan loolu bokk na ci loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla Moussa xamaloon na ko ko ne ko ndax yéen gudd leen fan mhm. moo tax ba muy am juróom fukki julli yi mu ne ko demal ñu wàññi ko muy wàññilu di ndey saan ba sa kersa gu bëri ga mu ne ko rusati naa dellu sama borom di ko laaj mhm. ndax nit di nga ko laaj di ko laaj même jigéen war nay laaj di laaj boroom këram ba si yàgg mu rus dëgg la nga dem ba ci ngoon jot ndoguli jot nga xam ne mburu mi bër amul wala wala wala wala wala meew amul nga ne kii daal alaaji bi wala walla jànq yiy liggéey bi nga ne ruusatinaa dellu di ko laaj mm-hmm. loolu mooy jikkoo woo nga jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax yonent bi da doon def li mu doon njëkk a def ijtihaadu nabi sallallahu alayhi wa sallam fiiha fawqa ma kaana yajtahidu fi gayriha min ayaami shahr mm-hmm. yonent bi da doon double effort su yeneen guddi yi da xam ne rek da nga mm-hmm. koy gisee moo tax ñu ne kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama li mu doon def mooy isa daxala achara awaaxir min ramadan ahya leyl wa ayqaza ahlahu yee njaboot ji wa amur ahlaka bi salaa mu wa amur loolu la ko yàlla waxoon mais guddi yooyu du moom kese mooy dem buddeeku dem defi itikaaf wala moom kese mu dem def xiyaamu layl mhm. mais da ciy obliger njaboot gi soxna yi ak doom yi ok ñu jël ki ci ligne bi te ñëw insha allah macha allah salaamaaleykum wa salaam sëñ bi ok bismillah euh, en fait dama amoon benn laaj mu bëggoon a laaj mhm. man daanaka faralaatuma doon julli ak yooyu te damaa déggee di barki démb ci benn waxtaan fii ci France ñu naan ku ku nga xamante ne dafa am ay boru julli bu kiiwee daf ko war a dem ba buntu safara fay ko fa. dégguñu la bu baax. allo. ma ne dégguñu li nga question bi dégguñu ko bu baax. dama ne dama déggoon ne. Hmm. ñu naan ku nga xamante ne dafa am ay boru julli. parce que dama daan doom daaw ma julli ak yooyu léegi ñu ne ku am ay boru julli bu da nga koy te dangay dem ba bunti safara fay fa boru julli yi léegi xam ki nga xamante ne am ay rafa euh, dafa toog bu kii ak yooyu léegi naka la mën def pour rattraper julli yooyu ndax mën na nekk ok ndeysaan wala walaay doo dem safara doo dem buntu safara alaxira <laughs> kenn du fa jaamu yàlla <laughs> xam nga dafa am ñu nga xam ne Adja waaw moomuñu àjjana nag. dañuy def dañuy def xadisu tarhib. waaw maanaam dañuy wax lu yóbbu fitu nit. Mhm. ba mu xaw a dem xam nga kii traumatisé nañ ko boo ko déggee ni muy waxee. Mhm. traumatisé nañ ko yóbbu nañu xelam. Mhm. nga xam ne léegi def na ko kaa. nan lay def ba buntu safara mu fay for julli. moo tax euh, man afta bi xayri ilmin rek def na erreur. nit bu ñu la laajee loo maîtriser wul. du gàcc ci jullit ñu laaj ko lu mu maîtriser wul mu ne may leen ma seeti ko. waaw wala xaw ma. wala wala mu ngoog. nisful ilm. la adri la adri. te imam Malik mi nuy wax nii. delloo na 36 questions. wallaahi allahu akbar 36 questions. te nee ñu laa yufta wa Malik bil Madina. ñëpp d' nañ ci borom xam-xam la posé nañ ko 36 question mu delloo ko wala ni yii xaw ma ko. donc kon nag nit ki buñ ko laajee dara lu mu maîtriser wul wala lu mu bëgg yi na seet benn méthode bu mu jaar ba dimbale nit ki te bañ ko yóbbu fitam euh, soxna si nit su amee boru julli maanaam nit warula am boru julli loolu mooy li jaadu parce que julli dañ ko limité ci ay heure ak i waxtu yu ñu séddale bu waxtu jotee da nga war a dem julli laahumma lu dul nga am ngantu jigéen bu la tere nga bañ a dem julli ci lu dul loolu nag danga nga war a julli yëfi ndaw nag dana jàpp nit muy dem di dem di dem di dem lool ba kanam la ak seytaane ak topp ba kanam ba waxtu julli jot mu bañ a dem julli ji loolu di ko def peut-être un an deux ans trois ans cinq ans après nga am conscience bi su dellusee see fuqaha yi dañu wax ne soo ko bëggee fay mën nga def saa yoo jullee tisbaar nga fay ñaari tisbaar soo jullee tàkkusaan par exemple tegaat ca ñaari tàkkusaan lu tax ma wax ñaari tàkkusaan parce que boo nee damay def quatre wala cinq rek yu mujj yi mën nga ko bafuyee mais soo defee deux tisbaar def deux tàkkusaan def deux timis deux gée deux suba soo ko defee ba am un am nga léegi deux ans yoo fay ci ginnaaw yoo retaaroon macha allah donc loolu boo ko defaatee rek amaat nga yeneen deux ans yoo fay finalement di nga dabaat te loolu day mel ne la yooyu tofal ci kii bi rek fekk ne julli farata yooyu julli la nga mën a dabaatal mm-hmm. Mm-hmm. loolu moom fuqaaw yi loolu ñu tëral mais nag doo dem mukk buntu safara di fa julli ji déedéet jullit moom incha allah yàlla dina ko musal ci safara te yàlla nañu yàlla musal ci safara te encore sa oustaz képp ku tuub yàlla baal la wallaay wa surudu tu moom am na dama ala ma faat wallaay boo rëccoo li nga defoon mm-hmm. dañ dëgg la sax fay bi moo gën waaye même xattaa sax bu fekkee ne fayoo ko sax te nga fas yéene li des sa dund ngay julli mm-hmm. te dootoo faat benn waxtu mm-hmm. wallahi alazim yàlla nag xaafiru zanbi wa qaabilu tawb daf lay baal sa bàkkaar loolu il faut que ndax nee na laa taqnadu min rahmatillah inna allaha yaghfiru zunuba jamian yàlla bàkkaar yëpp lay baal bu kenn ñeeblu ci ne yàlla duma baal mhm. jàppal ne yow bés bii nga woote bi nga woote rek mhm. yàlla mun na ci sukkandiku jéggal la sa bakkaar yu gënoon sax yu dul ñàkk julli bu kenn découragé ñun ñëpp àjjana la ñuy dem insha allahu taala rawatina ci weeru koor bi macha allah macha allah kon uh, oustaz defe naa mhm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam bàyyi Faatumata Bint ak Ruqayya ak Umu Kulsum ak yaa ngi doon wax ci laytul xadar ni muy def. ni muy def mu ne. da nga ne woon. Mhm. su bu bu dul bu dul fukki fan yi ci weeru koor. Mhm. day day jaamu yàlla yokk def effort. Mhm. mais bu dee fukki fan yi mujj la ci weeru koor. Ah. moom mooy dem. mais day redoubler en même temps du fi bàyyi njaboot gi. njaboot gi yëpp la naan pëkk pëkk jóg leen. ay xaza ahlahu bu ñu jógee ba pare wa jadda wa saddal mizar est-ce que day laxasaayuwaat takku ba mel ni kuy pare pour dem ci xare hmm. ça veut dire mooy dangay ngay wóor la ne kii tey bu nee allahu akbar ci qiyaamu layl bi bu nee asalaamaaleykum rek dañu ne asalaatu xayrun min annawm macha allah i'tikaaf yi mu doon def gis nga tey soo demee madinatul munawara oustaz hmm. soo xoolee diggante ma bay ma fi fi ñu bind ma bay na bayti wa min bari rawdatun min riyadil janna tableau bi noonu mhm. soo xoolee dangay ngay gis ustuwanatu Aïcha macha allah nga gis fi nga xam ne Aïcha fa la doon nekk di naafila mhm. mooy benn pied boo xam ni bi mu bu ko mandargaal nga mhm. gis bu Abu Zarrin gis Habsa jigéen ñi demoon nañu pour bañ a nelaw sax yonent bi sallallahu alayhi wa lu tax taaha maa anzalnaa alayka alqur'aana li tashqaa illaa tazkiratan liman yaxshaa macha allah te teewul moom moomu kat yàlla wax loolu ne ko déedéet sax demoon nañu am na benn soxnaam boo xam ne dafa demoon bay takk buum ci jël kol gi takk ko takk ko ci pied bi mhm. pour bañ a nelaw ndax taxaw bëgg taxaw taxaw bu taxaw comme ni yonent bi taxaw macha allah te oustaz nit dafay mérité li mu am dëgg-dëgg nee naa ñun budul woon sax yàlla àjjana bi mu bi mu ñu may mhm. ci bu ñu ko jaamoo mais sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi mu fekk jigéen mm-hmm. Mm-hmm. ci asrul jahiliya macha allah ak fi mu ñu jëlee mm-hmm. ak fi mu ñu jëmee bu dul woon sax àjjana ñun war naa tax kuy jigéen déggal sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam eh, mais jigéen ñi doon nañ ko déggaloon nañ ko jigéen ñu nekkaloon macha allah ndeysaan daan na daan na wax mbaax comme ni nga def ni muy wax mbaax ba mu yàgg jigéen ñi wekkat seen jaaro ne ko defal ñu ko ci lislaam def nañ ko ci lislaam ndeysaan di di dindi seen i jaaro ak seen i lami tànk seen i lam loolu nag mu ngi dal ba tey suñu jigéen ñi mm-hmm. gis nga yenn saa yi nga toog di wax ci Seydunaa Muhammad nga gis ku tekki lamam takkal la ko macha allah wala mu tekki jaaro baaraamam am na maire bu démb rek euh, maa ngi koy dégg de passage mu ñu koy wax Adja njooxo ndaw nekk Paris jëkkëram tudd Abdou Pen macha allah Mbay démb ci kii dafa rafet ci man mhm. mu ne wàcce na ñaari kaamil ci koor gi mu ngi ci ñetteelu kaamila moom Daaru moom Daaru man amaguma sama benn kaamil matagul macha allah Adja Daaru Mbay woykat soo da maam ci benn télé laa seetaan mu dem fa mu ne ko maa ngi ci sama troisième kaamil te kero ba may dem Paris te Paris laa jànge alquran te ki ma jàngal mooy Adja Njoxo Ndaw jabaru Sëriñ Abdou Pen keroog ba ma gisee dafa ne wékket jaaro or boo xam ne bi ma ko pesé jar na un million moom la jël ci kanaalu euh, alimatu pour li may wax mu leer sol ko ci sama loxo bi ne ma ko maa la ko terale ngir Seydunaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon dañuy gis ne jigéen ñooñu ba léegi Sénégal am na ay jigéen ñoo xam ne ñu ngi taxaw wuutu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax kat liñ koy defee ci soraanoo ñu taxaw di woy di la taggal say maam nga joxe boîte or joxe kayitu kër joxe joxe ay oto am na jigéen ñoo xam ne ak ay góor ñoo xam ne. Hmm. ñu ngi koy def fii sabilillahi ci ay biye màkk. macha allah wallahi azim xam naa ne sama góor gii ma la wax. Hmm. su déggoon lii xale bi yéene teddu dafa avancé ay tur. Hmm. juróomi tur jox na ma ko démb. ne ma woowal ma leen nga ne leen dama leen di yóbbu màkk bi ma leen woowee ñooñu ñoo ma ne ñoom xamuñu ko ndekete. moom fa mu nekk day dégg nga jàmbat mhm. comme xale bi nii mu jàmbate ne oustaz bu ma amoon billet màkk dinaa la yóbbu bu ne woon toq ci noppam day jël ne oustaz moomu de xaw ndaw si waaye man daggal naa ko billet wuutu naa ko ci Seydina Muhammad yal na ko yàlla fay ci barke Seydina Muhammad te mu ngi ci macha allah ci ren te at mu jot noonu la yal na ko yàlla fay kon nag am na ñoo xam ne mhm. xëy na seeni maam a leen di daaneel mhm. waaye am na ñoo xam ne Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo leen di daaneel. Ah, kooku jar a daaneel. waaw kuy daanu ndax nee war a daanu. moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na lu tax may def loolu. Mhm. mu ne man qaama laylatul qadr mhm. imaanan waxtisaaban xufira mhm. lahu maa taqaddama min zanbihi loo defoon ci bàkkaar màbb nañ ko ndax itqun min an naar maanaam même su ma fekkoon dama sàccoon dama fenoon dama defoon dafa ne rek awaluhu rahma wa wasatuhu maghfira wa axiruhu itqun min an naar mu ne nag man qaama laylatal qadr képp koo xam ne taxaw nga laylatul qadar imaanan nga boole gëm yàlla waxti saaban nga taxaw di julli di ñaan naan allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa faafu anni ndax sayyidatuna Aïcha ko ne yow sama borom kër ndax moom moo doon ustaazam mhm. allamahu shadidul quwa kan mooy ustaazu Aïcha. est-ce que sallallahu alayhi wa sallam kan mooy ustaazu Seydina Mohamed. Seydina Jibril. Jibril kan moo koy yabal. suñu borom subhanahu wa taala. waaye munul yem munul nuroo. non non non non roy munul nuroo pire. kenn mënu fee indi doctrine wala benn xam-xam bu ëpp Alquran bi nga xam ne. yàlla moo ko jox jibril alayhi salaam. mu mm. jox ko lu waay wax sa wax dina mës a sàppi wala mu mës a xewi wala mu mës a jeex ba mu des bii nga xam ne mooy. alquranul alquranul karim moo tax ku bëgg a noppalu. Mm-hmm. wiiri wiiri. Mm-hmm. jaari ndaari. te ngaa jubali ndaari rek bañ ci wiiree. jubali ndaari ba a wiiri. moo gën a noppal macha allah kon nag alquran jooju moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne. Mm-hmm. képp koo xam ne. màggal nga ko. moom guddi laylatu qadar iman ufira lahu ma taqaddama min zanbihi hadis mhm. bi ma wax mhm. buxaari moo ko solo ak muslim muy lu wér péng mhm. loo xam ne amul benn du xaddu daif du kii te am na foo xam ne albani taseex na ko macha kon mbokk yi dañ leen di wax ne guddee ngi nii xayrun min alfi shahrin mm. lu tax tanazzalul malaikatu mm. xoola tey buñ ñëwoon tey euh, wareefu ramadan bii mm-hmm. euh, suba na ngeen bàyyi xel ndax premier ministre dafay ñëw visiter si plateau bi. Mhm. nu ñuy def. waaw dañuy jekkalaat de. dinañu jekkalaat Fompa. ba pare sécu gën a sécuriser fii sécuriser fii ah yu bëri dootu fi feeñaat. Mhm. maquilleuse yi taxaw macha allah xoolal nag moo tax yàlla ne laylatul qadr xayrun min alfi shahrin lu tax mu ne tanazzalul malaikatu mhm. ñoom directeur ñëppay ñoom ñoom Mamadou Ibra Kane dañuy ñoom ñoom Alsaan ñoom euh, xale ba sant Ndour lu ndaw li. waaw Birane Birane. Mhm. ak Njaga euh, keneen ki. Buuba Buuba ñëppay ñëw. Mhm. ñoom During ñoom Josephine ñëpp ñëw ñoom Awa Ndiaye ñëppay ñëw tey. waaye nag parce que premier ministre moo war a ñëw premier ministre moo mhm. waaye yonent bi nag. sallallahu alayhi wa sallam yàlla lu mu wax. tanazzalul malaikatu wa ruuxu ruuxu fiha. min kulli amrin. te lu muy indiwaale salaamun hiya hatta matla il fajr dégg naa guddi googu jiit sax du fett nit ah dana jafe ndax salaamun hiya ji ndax salaamun hiya ji moo tax bu guddi googu am na ñu bëri ñu koy dundal macha allah donc kon yonent bi saa sallam professeur boobu nga xam ne mooy jàngal Sayyidatuna Aïcha bi ko Sayyidatuna Aïcha laaje guddi gi lan laay def mu ne ko allahumma da ngay wax lu gàtt ndax yonent bi dañ ko jox jawaamiul kalim mhm. wax ju gàtt ju bari maanaa ju bëri njëriñ mhm. allahuma yow sama boroom mhm. innaka afun yow mii yaay baalekat bi tuhibbul afwa ku bëgg baale nga non seulement yàlla yow dangay ngay baale mais da ngaa bëgg baale kon nag faafu an nii man est-ce que du bëgg baaleem bi est-ce que du bëgg baaleem bi maa ngi ñëw de da ma toog eh, loolu parce que li ñu koy soxla eh, est-ce que du bëgg baaleem bi moo tax aadama tooñ ko mu ne ko waxal lii pour ma baal la ndeysaan xam nga saan yonent bi dama dama am ba samay liir kenn mu ne soo ñëwoon di ko laaj mm-hmm. dafay mel ni moom moo lay laaj ndeysaan neexal gi mu lay neexal boo ñëwee di ko ñaan xam nga ku ñëw di la ñaan en général moo la war a neexal moo la war a neexal mhm. mais moom bu la koy jox day mel ni moom moo la doon ñaan moom moo la doon laaj allahu akbar ndax loolu mu ngi ko jàlli xam nga yow bu ma xëyee ne la oustaz euh, maa ngi dem di sama oto bi amul essence mhm. su ma la ko waxee juróomi yoon rek juróom benneel bi su ma la jubee di nga mel ni kuy téléphoné wala di kii wala mu génn nga ne mais kii nag euh, vraiment soxna si dafa amul xel maa ngi ci am benn nettali bu gàtt bu reetaanlu waaw ci benn nit boo xamante ni bi dafa am ko ko lakkal nag bis bu ne mu ñëw di ko ñu ko ñaan si. Mhm. ba benn bis nag mu séen ko muy ñëw di ñaan si. Mhm. mu wax doom ji kee di ñëw de daf maa lakkal bu ñëwee daf may ñaan si maa ngi yëg ci garab gi bu ñëwee laaj ma nee ko sam papa dafa dem gengi neew daal di yëg ci kaw garab gi xale baa ngi ci suufu garab gi di continuer di jouer. Mhm. bi kooku yegg see ñëw nuyoo ah, xale bi na nga def ana sa papa jàmm sant bi tax na xale bi fàtte na baatu gengi neew bi. mu ne ko ana sa papa xale bi ne ko sama papa dafa dem ba mu yàgg mu téye ne ko papa foo waxoon nati. <laughs> <laughs> paa bi ne ko géngi néew damaa sonn <laughs> donc pour wane nii rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk la kenn bokk la kenn bokk la xam nga kooku xam nga xam nga loolu mooy loolu wallaay xam nga keroog ba papaam ju ndaw ju bëgg xaalis ja ñëwee mhm. turbee ma teewluwul yonent bi di ko jox di ko jox muy sol ba amatul fu mu sol mu ne neexul ba neexul mais kii di joxe joxe bi kenn néegu ko ci Quraysh kii ashadu an laa ilaha illallah wa annaka rasulullah noo bokk ci noo bokkul ci sallallahu alayhi wa bokkul ci course bi bokku ci moo tax yonent bi xam nga alquran bu ne inna anzalna fii laylatin mubarakatin inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim hakimin amran min indina inna kunna mursalin mm-hmm. xam nga guddi googu nit daf ci war a bàyyi xel ndax lépp ci lañ koy natt li jëm ci at mi mm-hmm. fi mu nekk ñi war a fekke déwén li ñu war a wërsëg yi est-ce que heure boobu oustaz du baax oustaz boo fi jooyee ba ma jooy fi di nga xam ne <laughs> bu ko émission bi day yàqu de wala boog ma arrêté fi ñu daal di alaat eh, eh, eh, sana dugg dugg dugg dugg dugg dugg dugg si pause bi fii xay oustaz yaa may bloqué laa ilaha illallah muhammadun rasulullah ñu baal ñu rek xam na inna anzalna fii laylatin inna kunna munzirin fiiha mm. yufraqu kullu amrin hakimin amran min indina ndax lépp mbir saalum saalum ba ba mu koy firi ba yegg ci dana mbir fa yàlla mhm. oustaz lii yëpp yàlla la xam nga ki nga xam ne nee nañ ki démb liggéey na ba wàcc am koo xam ne nee na cinq minutes woo na ma ndekete yàlla bi muy séddale daaw mhm. ñii war a fekkee bii ren moom waru cee bokk allahu akbar ñaata la tey ci àdduna bi kenn xamul lañ toll yow boo rëccee ba fekkee ko mhm. rikk bu mu la fekk ci kaw lal bi dëgg la rikk bu mu la fekk nga nekk ci yeneen i caaxaan euh, sama wëllëre sëñ Moustapha Xassay da daan wax ne sëñ Touba da daan wax ne mhm. wàcc leen lal yi te ñëw ci der bi ñëw ci der bi wàcc leen lal yi te ñëw ci der bi xumi mhm. layla illa qalila mu ngoog saan euh, ñu dundal laylatu qadri te ñu jàppale ci nit ñi mu bañ a nekk laylatu qadru puukare ndax dafa am laylatu qadr yoo xam ne sañse la comme li xale bi wax sànq maquillé yow puudaru wàcc greffage. Mhm. waaw téyel doon am na kuy yëngu ñu xool ko. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa salaam sa. ndeysaan Tata Bintu. waaw alhamdulilah. ak suñu nijaay jooju si wetam. ñu ngi lay fay tabarkalla. man nag maa ngi tudd Fatoumata Aïdara maa ngi woote France. ay dara ñoo ñoom lay ziar ci sa barke maam Seydouna Mohamed. wallaay dag may jooyloo bés bu ah, baax na bu ngeen fi nekkee di jooy bu ma jooyee bu soobee yàlla di ngeen wooyu pompier. da ngeen <laughs> a ngi jooy yaa ngi jooy waa man na kon nu may def. Ah, nañu sant yàlla rek. daf may dool di motivé daf may dool di dox ne sama xol day waaw ñu ànd ñun ñëpp sant yàlla nag te <laughs> bu ñu jooyee ñun ñëpp nag émission bi dootul egg. bu ko defee ñu góorgóorlu rek jéem koo eggali Seydouna Mouhamed moo toll noonu xam nga waa régie nag ñoo ñu ci dugal tey. <laughs> xale yi la. dama doon waaw ay dara. wallaay wallaay yàlla na la yàlla fay. te li ngeen di def yàlla na ci yàlla soxal. amiin yaa rabbal aalamiin amiin yaa rabbal aalamiin da ngeen dem sax Makka Madina. amiin. amiin barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla na la yàlla wanaleeg sa maam. allahumma amiin yaa rabbal aalamiin. ndeysaan li ngay wax ci sànq ni dama jooy ndax sama papa dafa daf ma jàngal islam te. alhamdulilah bu soobee bi ma jiitee weeru koor mu ne allahumma innaka afuwwun kariimun tuubul afwa Mhm. sama waajur maa ngi koy dolli sant sant la kenn mënul fay yàlla kenn mënul sant yàlla lu nu toll képp ku yàlla baaxi nga ne ashadu an laa ilaha illallah yàlla may la nga xam diine wallaahi desalu la dara alhamdulilah rabbil alamin. macha allah mbokk yi nañu sant yàlla. yonent bi sallallahu alayhi wa moo toll noonu. moo toll euh, cëram ci boroomam. moo toll noonu. moo tax du du ngistal. du ngistal du leneen. Ah, loolu euh, nit cofeel bi ko nit ñi sob ak def gi ko yàlla def. Euh, ku ne dafa doon am yéene. di jëriñu ci leeru Seydina Muhammad. sallallahu alayhi di jëriñu ci xam-xamu Seydina Muhammad mais aussi amoon yéene bokk moom terrain ba mu doon dund ak condition ya doon dunde ak ni mu doon propager l'islam kenn ku ci nekk loolu nga amoon yéene moo bu ñu ko tuddee sa sidiitu gor boobu moo lay fekk ci moom nga am noo mën a def ba feeñal sa cofeel boobu ci moom kon yàlla na nañu ko yàlla fayal moom sallallahu alayhi wa sallam noonu itam la ñuy rafetloo ñi nga xamante ni bii seen cofeel moo leen yóbbaale ba bu ñu toogee bu ñu ko tuddee seen rangooñ dal ci seen dënd xam nga ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale na la nee na bët bu tuur rangooñ bët bu tuur rangooñ te fekk na yàllaa tax suñu borom du du mbugal ba boole bët te ku mbugalul bët bi du mbugal jëmm ja bët bi nekk mm-hmm. loolu moo tax ñu sant yàlla bu baax mm-hmm. comme am na ko nekk ci ligne bi ñu jël ko incha allah mm-hmm. euh, doog a continuer salaamaaleykum wa rahmatulah mbokk. aleykum salaam. ok Seyda. ok mbokk mi. ñu ngi leen koy delloo macha allah Adja. ko waaw ñoo ngi lay ziar di la di la delloo merci waaw jëf yàlla na yàlla nangu ziar wax neex na lool yàlla nañu yàlla boole yiw bi waaye bu ngeen jooyee ñëpp jooy waaw ñoo ngi jéggalu de jooyee ñëpp jooy xol yëpp tooy nañ wallaay ñoo ngi jéggalu bu baax baax a baax jéggal leen ñu de leen di ñaanal yàlla bàyyi leen fi. amiin yaa rabbal aalamiin amiin yaa rabbal aalamiin. yàlla may leen fan yu gudd. amiin amiin. ak wér gu yaram. amiin amiin yaa rabbi. ñu ngi amoon benn laajte bu ñuy laajte nag. bisimilah mbokk bisimilah bisimilah. ñu ngi bi bu dee yow da am ngant lan nga war war a ñaan daal parce que yow julli da am ngant. macha allah incha allah. ngeen loo war ñaan. incha allah incha allah dinañ ko wax léegi bu soobee yàlla. jërëjëf dinañ ko wax léegi incha allah. Eh, tabaarkalla mbokk. waaw defe naa ni. Mm-hmm. Eh, xam nga Seydou Sën Aïcha. Mm-hmm. jàngalekat bu mag la woon. Mm-hmm. te réglé na problème mu ñi am ngant. Mhm. réglé na problème mu ñi tawat. ñi tawat réglé na problème mu ñi ñu tëj ci kaso yi. dëgg la na problème mu même ñi nga xam dañuy am malaat bu ñuy taxaw sax te mënuñoo liggéey loolu taxaw naa fi la réglé na seen problème te mooy question bi mu posé yonent bi sallallahu alayhi mhm. ne ko bu laylatul xadri ñëwee comme lu ñuy seet la te xaw ma fu mu nekk bis bu ma amee change tombe ci ñu ne bii la mhm. naka laay def. yonent bi wax ko baat yi nga wax. léegi am na ñoo xamante ne bi Adja mënuñu wax baatu arab. est-ce que nañ leen ko résumer ñu wax ko ci olof. muy benn mhm. ñaareel bi am na koo xamante ki génn léegi. Mhm. nee na ki am ngant. lan la man def est-ce que te mënul julli. Mhm. te dafa naa ñaan laajul. laajul laajul laajul set waaw ñaan laajul set. yooyu nag moom lañ bëgg nga leeralal leen ko macha allah. xam nga ñi am ngant oustaz. Euh, bu ñu ne rek dama am ngant damay tëdd nelaw. dëgg la xëy na ñoom ci jàkk ji duñu mën a dugg si biir jàkk ji mais mun nañu nekk ci peggu jàkk ji bu dee ci jàkk ji lañ koy màggale wala ñu nekk seen kër solu defaru ba sell euh, fexe ba du ñu taas fenn euh, bu ko defee ñoom ñu jël seeni kurus mais nag du ñu laal kaamilo alquran ñoom du ñu mën a jàng alquran su dul lañ ca jot a mokkal ak us néew li ci des mooy dañuy def istigfaar mhm. mooy astaghfirullah di sàbbal yàlla ci tur yi ñu mën mhm. ci ñaan yi ñu mën di wax itam ñaan boobu te yow di nga leen ko firil ci olof ni mu gën a gàtte euh, ñu delluwaat ci loolu mais du du ñu du ñu du du du du leen yàqal dara ci guddi gi. macha allah du leen yàqal dara ci mm-hmm. gi. Mm-hmm. comme li nga xam ne lenn rek nga munul doo yow doo def julli doo laal kaamilu alquran. mais leneen li ci des yëpp. Mm-hmm. yaat ki ko am am set yéen a ci tolloo. Adja gis nga. nit ñi bokk na ci li leen gàllankoor seen diggante ak seen borom. gàllankoor seen wërsëg. gàllankoor même ngay ut emploi. wala nga nekk ci dara bëgg ca promotion. bokk na ci li la gàllankoor mooy bàkkaar. loolu day am. moo tax guddi yu mel noonu su ñëwee bëril def istigfaar istigfaar ñaan bi soxna si wax léegi. allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa faafu anni amul lim. Mhm. amul lim. amul lim te mooy. yàlla wallaay mhm. te mooy yàlla. Mhm. yow daal xam naa ni yow ku mën a baalaate nga ku bëgg baalaate nga baal ma ku mën baalaate nga ku bëgg a baalaate nga baal ma gis nga lii gàtt na. yonent bi moo ko tënkee noonu boo ko dee wax doy na sëkk walla. am na beneen boo xam ne yonent bi tudd na ko sallallahu alayhi wa sallam ci xadis boobu ñetti yoon kese yonent bi nee na sa bàkkaar bu tolloon ni àdduna soo ko waxee trois fois kese sunu borom effacé na sa bàkkaar yi mooy nga wax astaghfirullah alazim alladi laa ilaha illa huwa alxayu alqayum wa atubu ilayhi wallahi astaghfirullah alazim alladi laa ilaha illa huwa alxayu alqayum wa atubu ilayhi trois fois kese fekk ne deseetuloo benn bàkkaar léegi bu fekkee da ngay ñaan sa borom te amatuloo bàkkaar kon déjà am nga sens li nga ñaan sunu borom da lay déglu parce que ku amul bàkkaar jege na sunu borom soo gisee liir jege sunu borom ba teraanga bu nekk mu koy am fi ne bu ñu ñëwoon benn xale juddu na ci koñ bi rek kenn ku ci nekk yére bébé yi nga amoon da ngay daal dem yóbbul ko ko. wallaahi teraanga yooyu. ñàkk bàkkaar moo koy jox kon nag li nit ki war a jëkk a def mooy effacer bàkkaaram. astaghfirullah loo ci mën salaatu ala nabi loo ca mën jàng alquran loo ci mën taxaw julli ay rakka di sëlmal loo ci man amul mënuma saar yu bari même boo mënee xul wallaahu ahad kese def ko di sëlmal ñaari rakkaat di sëlmal boo sonnee toog naan tuuti ndox boo sonnee nga tëdd tuuti noppalu dellu siwaat hatta matla'il fajri incha allah màng nga guddi laylatul xadar jël nga ca tuyaaba bu dul jeex jëriñoo ko incha allah kon nag istixfaar salaatu ala nabi ak ñaan boobu yonent bi waxoon ak taxaw julli noonu la ñuy dundale guddi laylatul qadri ajaa wax na léegi ni bu bi weer wi commencé mënoon nañu guddi gu nekk ñu ñu ñu def ko bu ñu sukkandiku ci hadis bi yonent bi wax ne boo ko xoolee ci fukki fan yu mujj yi ci impair yi kon nag mu ngi noonu macha allah Adja dafa mel ni waxtu mi ngi ñuy sëkkatal. tàggoo mi ngi jot. su ko defee ñu daal di tàggoo incha allah ak joxe li ñeenti fan yi ba laylatul qadr ba laylatul qadr macha allah tey incha allahu hmm. ci lañuy yëkkati eh, jotaay bi ba altine incha allah tey macha allah bu ko defee oustaz man tey bu ma fi jógee maa ngi jëm hôpital fan macha allah ci jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk arbir royo macha allah nga xam ne pédiatrie boobu dañu def benn daayira def faale amical parce que léegi euh, ministère yëpp ñu ngi góor góorlu ci loolu initiative bu rafet la mm-hmm. ñu ngi leen di ñaan nag nañ ko soppi ay daara macha allah bu koor gi paree itam nañ ko continuer mm-hmm. bu ko defee ñoom nday na ñoo fay organiser tey falaa jëm léegi nii quinze heures maa nga fa lu lu xejul fii rek mm-hmm. dinañ ko mottalee foofu su ko defee samdi ñoo ngi ICAD 2 ak alaaji rawaan mbay ci ñoom rama wàdd waa université de Dakar ñoo fa woote seen waxtaan bu rëy boobu bu dimanche waa APR sa jigéenu bopp yu parcelles yi waa kër Mbay Njaay Mbay Njaay yi ngi lay nuyu di la ziar su ko defee ci guddi gi nag ñu mm. dem Alaaji Malick Kase alhamdulilah ci laylatu qadar bi ak kaaw nag mm. kaaw itam nee na moom it dafa du nangu rek soxnaam si rek ñu jël di ko yóbbu rek feneen mm. nee na moom it day organiser ren laylatu qadar tëngéej macha allah waaw daal di jël nag pare ne ko Adja Binta Diallo ak soxna Abu Kan alhamdulilah ñoom Khady Ndour ak ay Ba Fodel Binta su ko defee daal oustaz dañuy wax ne Adja Roqee Sàll grande sœur Macky Sall démb woote na lu yàgg dafa dugg ba sonn mënul dugg. macha allah xaritu Asfaal nee na mu ngi lay nuyu. ak ñu ngi koy fay macha euh, mu ngi rafetlu émission bi di la ñaanal yàlla. fan bu gudd ak wér gu yaram. bàyyi Niass siitam nee na nañ ko mm-hmm. nañ la wax ne la invité na la. ndeysaan moom la yaayam génnoon. waaw waaw waaw waaw ndeysaan ndeysaan maire bi démb nee na démb daf ko ne wool ma Mor Thiam. mu ne ko yaay jot ko nee na muy mu <laughs> mer. ne ko lan kaa bañ a woo kon Baye Niass itam samedi moom maam Awasi. Mm-hmm. nee nañ samedi ñoom it dañuy def seen i ndogu Awasi bu Serigne Diop sa macha allah su ko defee daal ñu ngi invité jullit ñëpp mm-hmm. di leen wax ne ñu ngi leen di xaar dañu def salaatu tasbih salaatu tasbih bi mm-hmm. dañ koy def yow nag daaw xam naa tey temps bi xaw ma ndax dina ci xej ndax daaw joxe woon nga ko mu am solo trop. ren tamit gaañaa ngi koy réclamer. Mm, waaw kaaw a ngi koy réclamer bu baax te xam nga kaaw nag. lu mu réclamer incha allah bëgg nga ah, jox ko ah non dañ koy dañ koy joxe macha allah may nuyu sama doomu bopp mm. yi susu doomu boppam yi. Mm. di nuyu sama doom ay satu ñaar. soxna soxna dafa am xale boo xam ne Kër Massar lay jóge dafay jóge këram ñëw ne ma tata weekend bi dama ñëw rek pour toggal la li ngay lekk yaayam tudd Nogoy Njaay mm-hmm. papam tudd euh, ndaw la sant Njaay nekk ca Italie dañ koy jox ndugg yëpp ne ko mm-hmm. demal ci taafaat bintu kon soxna de passage maa ngi lay nuyu di la ñaanal yàlla yàlla na la yàlla tabaarakallah macha ma delloo la kàddu gi oustaz eh tabaarakallah ñu ngi sant sunu borom bu baax mais oustaz na bul fàtte aram ndeysaan yàlla na yàlla de aram géy yàlla ko yàlla aar amin amin Eh, yëkkatiku ci ci liggéeyam ak teraanga yeeg yëpp macha allah. amiin amiin ñun tamit sunu tabarkala sunu jumaa ji ñu doon wax am na benn jigéen madame Sow pour ma bañ a tudd turam. Mm-hmm. ndax neen daf ko def rek ngir yàlla. waaw yëngatu na macha allah. Mm-hmm. ba waa jàkka ja démb jàng nañu alquran def ay dog ñaanal ko yàlla. ñeneen ñi tamit ñi ngi xaar seen réaction macha allah. Mm-hmm. parce que fi góor ñuy jullee noppi na mais fi jigéen ñuy jullee moo des. Ah, kon nag jigéen ñi moom il faut ñu def ci dara. ñun ñëppay ñëw. jeex na macha allah fi jigéen ñuy jullee moo des des gis nga wis wisal bi mu wis biig rek tax na dañoo xëy doon ngacc ndox ma fa da jot a am waaw ci ci kaw noonu parce que amagul amagul kii su ko defee ñu ngi ñu ngi ñaan nag ñëpp taxaw taxaw rek bu soobee yàlla incha allah euh, ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di wax ne cofeel la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak yéene bu buñ ko yéene ndam ak sopp guñ ko sopp loolu moo indi rek xam nga kabiru mboj moo doon wax ne tab ci xol la nekk rangoñ ci xol la nekk boo amee loo yéene defal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te gisoo ko la nga fa daj mooy rangooñ rek moom ngay génne. tey nag yaa ma jooy loo loolu moo tax macha allah yow ma jooy su ko defee <laughs> ñu ngi sant yàlla bu baax macha allah yonent bi moo tol noonu yàlla nañ ko yàlla fayal yàlla nañ ko muurloo yàlla nañu yàlla may ñu gën ko sopp suñu cër yàlla na ko yàlla sawaral ci jéego jëm ci wàllam yàlla na ko yàlla def su ko defee ñu ngi wax allahuma salli ala sayidina muhammadin wa ala ali sayidina muhammadin wa sahbi wa sallim wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh